dinañ ko daaneel bul yem rek ci daaneel dëbbalaatal suuf si ba mu mokk rumbax parce que am na loo xamante ni ci réew mii dafa ëpp loxo su foo dem ñun la ministre diwa moom lii diwa moom lii diwa moom lii te diw moomu li mu am ci kër ci réew mi kenn mën la wax nu mu toll aéroport bi waaye Yoff di jooy dëkkuwaayu yoof bi ku ne gis na nu mu mel pendant ce temps ñu jël ko di def lu leen neex man nag filaawo yi nekk géejawaay moom yooyu moom waxaale ma ko foofu moom pour nga seen géej gi sax problème la léegi man de moo ko rombee man de dama naan est-ce que fii la filaawo yi nekkoon non sérieux loo xamante ne ay scandale ñoom déetawaay xaalis bi dem na suuf si dem na loolu pour lan la mm-hmm. ah, ba pare ñu bëgg a dem ànd ak xaalis beeg suuf si mënul nekk mm-hmm. moom kay da di indi xaalis beeg suuf si ñu bàyyi leen ngeen dem mm-hmm. indi woo leen xaalis beeg suuf bi ah ñu xool nu ñu def ak yéen rek ah vraiment mi ngi ah, noonu en mu nekk décision boo xam ni euh, sénégalais yi rafetlu doon ko bu baax baax Maria beneen beneen actualité bu ñu daal di waxtaanee mooy réunion secrète bi nga xam ne euh, ñu ngi nuy wax ni euh, parti bi di euh, PASTEF amaloon na ko naka samedi bi nu daal di génn. Hmm. moom président Ousmane Sonko ànd ak kii di président Diomaye toog waxtaan ak ñi nga xam tey ji ñoom ñoo fare ci biir parti boobu donc nag li nañ ko daal di duppee la réunion politique di parti PASTEF. qui s'est déroulé samedi euh, dernier a réuni divers membres du parti, y compris le bureau euh, politique, les députés et les élus locaux, les coordinateurs départementaux et d'autres euh, représentants. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont dirigé les discussions avec les militants sur une gamme de sujets. Parmi les points abordés figuraient euh, le financement des activités du parti, y compris la construction d'un siège, les nominations au poste de direction et la restructuration restructuration de PASTEF euh, rapporte Source A. Cette restructuration débutera par la tenue euh, d'un congrès visant ultérieurement à obtenir une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Cette réunion indiquerait une volonté du parti de PASTEF de consolider ses structures internes et de se préparer pour des défis politiques futurs, notamment en vue d'accroître sa représentation au Parlement. Mmh. Lolo Euh, mooy réunion secrète bi nga xam ni moom moo amoon naka samedi bi ci parti bi di Pastef ginnaaw bu nu sukkandikoo ci euh, source a euh, mi ngi nuy xamal ni point yu ñu daal di waxtaanee bokk na ci nan la ñuy def ba daal di amalal li nga xam ne nag moo di financement jëmale ko ci nu ñuy taxawalee seen siège yu bopp waaye aussi nomination ci yenn poste yi direction ak li nga xam ne nag moo di jëmmalaat lii di parti bi pour rek nu mën a am majorité absolue ci élection législative yi daal waaye aussi euh, ñi nga xam ne nag moo di réunion boobu euh, ñu mu concerné woon bokkoon na tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay coordinateur ay euh, maire ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo di membre bureau politique bu PASTEF. Mhm. Maria réunion bi lu si jot tënk nekk na ay points yoo xam ni points yu am solo la. avant mhm. ñuy ñëw ci li nga xam ne nag moo di élection législative yi. dégg naa ci financement dégg ci li nga xam ne nag moom moo di chaise. Mhm. est-ce que tey jii parti bi di PASTEF fas yéenewul delloo bu mu ca mboy maanaam. teg li nga xam ne nag moom moo di ab cagnotte par exemple. Mm-hmm. ni carrément danoo bëgg a taxawal ab siège képp ku euh, kuy militant ci parti bi di Pastef dugalal li nga xam ne nag moo di sa koppar pour taxawal bi le siège. Pastef noonu la mas a doxee. ku mm-hmm. xam Pastef xam ne parti politique la boo xamante ni euh, xaar lépp lu nga xamante ni am nañ ko askan wi ñoo leen ko jox muy euh, patriote yi que ça soit ñi nekk biti réew wala ñi nekk fii ci biir réew mi. Mm-hmm. dama doon faral di wax ni kuy yaakaar ci ñoom xaalis sax doo leen votel parce que ñoom amuñu lu ñuy génnee di ko joxe. bëgg ñooy jël di leen financé ku ne gis nañu campagne yi fi jot a xew ku ne gis na taxawaay bu am solo bi nga xamante ni patriotes yi tey nagam keneen la ñuy ñaanal euh, exemple ay mafia kàcci kàcci dégg ngeen leen et tout ça. tey pap Abdoulaye Touré mi nga xam ne dañ ko doon kettal même pas une semaine 7 million mu doon parti boo xam ne dañu am solidarité ci seen biir. parti la boo xam ne tey bu ñu wax toogoon tey rek ni soxla nañu benn 10 million balaa semaine bi di jeex ñu mën ko am ngir taxawal. xam nga tey mënoon nañ ñi njiitu réew mi fi nekk moom ci parti bi la bokk. Mm-hmm. mën naa jël ci gafak ak état bi tabax ko. Mm-hmm. mais ah mais kon du du wane njub. Mm-hmm. lii mooy wane ni ñoom la ñu nekkoon seen démb. ak bërki démb tey ci la ñu nekk. Uh-huh. parce que am na nu am na ñu mu doon demee wala beneen président day jël ci gafak ak état bi tabax ko seen siège. Uh-huh. alors que nekk na loo xamante ni peut-être mënoon na ko def sax te kenn du ko xam. ah vraiment mais dañu préférer ñoom def niñ leen xame uh-huh. muy patriote yi da ngay gis ku naan damay parrainer joxe 1000 francs. billaahi gis nañ fi parrainage ak 1000 francs. man mii sama bët kay may na ma. du du lu ñuy inventé ñun ñi dañ ko uh-huh. teg suñu bët pare ne ba pare jël mille francs ni maa ko jàppal ci campagne bi uh-huh. ku xam Pastef xam ne noonu la mës a dundee ñoo xamante ni seen ay propre fonds uh-huh. la ñuy jël ngir mën a dundal seen parti politique ngir mën a tey nag bu ñu demee ba ni siège dañ soxla yaakaar naa ne tey ñu ngi koy wax nii mais mayal fii ak quelque temps nga dégg ni dajale nañu lii ci patriotes yi ñi nekk bitim réew moom gàcce ngaalaama ñoom ndax yaakaar naa ni Euh, lépp luy nga xamante ni jëm na ci lu parti bi soxla ñoom dinañ ci taxaw àndika ak ndaw yi nga xamante ni tey ñoo nekk fii ci euh, Pastef te nekk fii la ci Sénégal mu doon vraiment loo xamante ni wane na ni politique du xaalis. absolument mooy ni voteel ma ma jox la nangam. Mhm. wala nangam ak nangam ñii nag ñoom ñooy voté di joxe. Mhm. ça veut kon li ñu nekk dañ koo gëm projet bi dañ koo taxawal fas yéene ko teg ci seen loxo waaye itam taxaw ba lépp loo xamante ni parti bi soxla na ko. ngir ñu mhm. mën ko jël indi ci ay saafara. exactement mais mais aussi am na leneen loo xam ne waxtaanee nañ ko si. muy euh, nan la def. ba am majorité absolue fële ci assemblée nationale. te dañ ko war a am nag. vraiment parce que loolu mooy. tax bu bëggee projet yi mën a jàll. waaw bu ñu bëggee mhm. projet yi nga xamante ne d' autant plus que assemblée bii moom vraiment. Mhm. assemblée bu gën a si <laughs> quatorzième législature non sérieux man dama daan dem assemblée damay rus sax. Mhm. parce que da ngay gis ay nit yoo xamante ni. ñu fa ngir xam-xam. dañ fa ñëw ngir ruube. amuñu xam bi sax. amuñu surtout nag ñi faree woon ci ñi fi nekkoon. k la ci dàq ruube nga wax. ak sincérité ñiy wax ak dëggu. Hmm. da leen di compter. dafa dafa hmm. am loo xamante ne tey pour man. Mhm. ñooñu ñuy teg ci pencum ndaw réew mi ngir yàlla ndaw réew mi moo tax ngeen toog fa askan mhm. Sénégal moo tax ngeen toog tey même ñoom ñii fi toog tey bu ñu amee majorité mhm. na ñu xam ni du ñoom du ñee askan wi la ñoo tax ñu am loolu kon nag dañu war a jël li nga xam ne moom la askan wi bëgg di ko taxaw def ko comme ni ko Guy Marius Sagna di defee nga xam ne moom ñëpp xam nañ ni c'est le député du peuple député la boo xamante ni lu askan wi mas a sonn taxaw na ci yaakaar naa mu du ak yeneen exemple député yi nga xamante ni tey ñu ngi foofu biir euh, assemblée nationale uh-huh. tey nag bu ñu bëggee gën a taxaw faw itam ñoom itam ñu defaat yeneen jéego uh-huh. ngir mën a am majorité à l'assemblée nationale uh-huh. mais ngal la waaye ak majorité bu mu mënti doon nañu fexe tegal ñu assemblée ñoo xam ne ay ay boroomi bopp lañ ñiy wax ñu leen di déglu exactement mais wax dëgg yàlla ñi faree ci parti bee <laughs> saagakat ruubekat yuuxakat xeex sànnante daal la dañoo sonn ci loolu Sénégal instant bi dañoo mature nagam hmm. ñoom ñi ay mag mature nu ñun xale yi dañoo mature te bëgg nañu changement vraiment kon yaakaar naa ñu am majorité hmm. loolu dina tax seen li nga xam ne moo di liggéey bi ñu mu gën a mën a yomb parce que ñee ruube lañ mën hmm. mën nga fa indi projet ñu ne duñ ko voté <laughs> duñ ko def nangam non sérieux pour rek ah, dàkkal sa liggéey donc vraiment loolu tamit di liggéey boo xamante ni ñoom en interne peut-être dinañ ci am taxawaay bu am absolument très important euh, yooyu nekkoon ponk yi nga xam ni euh, moom lañ doon waxtaanee Maria di la jaajëfal lu baax a baax. Mm-hmm. jaajëfal naa la bu baax si mm-hmm. jaajëfal mbokk yu internet yi nga xam ne ñooñu doon topp saa su nekk ci seen 313 euh, digital nga xamante ni dañuy yaatal xibaar yi jox leen lépp loo xamante ne information la rendez-vous allah demain matin seen émission matinale. jaajëf mm-hmm. très important di la jaajëfal lu baax a baax. waaye aussi jaajëfal la ñu doon teewlu ak euh, gis-gis yi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe ci commentaire yi ñeel li nga xam nag moo di xantem d'actualité ñu doon waxtaanee jaajëfal bijou mi nekkoon ci xarale bi dañ jox di daje ci kanam tuuti ak deen xibaar jërë ngeen jëf